Sénégal 4 TV yow yaa ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV Sénégal 4 TV forever. te combat bi combat ku ci yaakaar ni combat bu yomb lay doon. wala combat boo xam day ñëw rek jeex ci cinq minutes yaa ngi naax sa bopp de waaw combat bi combat bi ma gis nekkul combat boo xamante ne day day ñëw jeex cinq minutes waaw idée gis nga de Ama Baldé jëluñu ko pour dem toogi ne croiser les bras non non Ama Baldé dañ ko jël comme comme yeneen comme yeneen adversaire yu fi jot a jaar waaw nan daan pare noonu lañuy pare waaw bu yokkul sax ok nag laa bëgg laa bëggoon a jàllale waa groupe bi dégg <laughs> parce que le problème am que combat bi nii daa am dossier yu bëri yi ne carrément dañ ko war a mën a régler waaw bu ko régler ba pare xam nga ku nekk aw yoonam quoi waaw Sénégal am jàmm quoi parce que gan gi ñi ñi ngi dégg ci biir waxam mu ne suñu diggante moom règlement de compte la waaw compte la kon nag règlement compte boobu boobu war a mën leeral. Euh, vingt six juillet xaamali saxaar ko vingt six juillet euh, juillet juillet Ama Baldé Modou Lo vingt six juillet Ama Baldé Modou vingt six juillet Ama Modou Ama Modou Ama Modou Ama gagné kuy gagné Ama gagné rawatina Ama gagné non dal boobu baax na baax na baax na. waaw bu leen ko ranal date boobu si si Ama la baax. pourtant démb naa leen mm, làmb ji la man foogoon naa si weeru ci weeru béy ndax dafa am kenn ku ñu laa ci si waxu Modou Lo si si asaabu Modou si si kiwu Modou Lo yi quoi ñu ànd ak ñu Modou Lo waaw mu ni ko dégg naa làmb ji taxaw na mu ni ko waaw waaye si boobam ni ko ba juillet lépp dana la foofu laa ko foree ma xam ni kon juillet la. ah man de waxi mag la len di wax de combat mom bu xasee taxaw ku ne man nga daan sa morom ku ne man nga daan sa morom ndax dal waxe ci xel mom baax nag xam-xam ak li nga xam ci mbeur mi amna solo de waaye lay xew mom yalla ko xam. am na yo amna supporter yo xam den ne wax rek lañ man wax duñ def dara lo len dag biye dara duñ ko ci def lulu dal yer sen connexion di di wax rek. waaw ah, da ngeen di jëndale nit fasu yaa bi rek te du ngeen ko ko gublee ah waaw maa leen wax loolu de supporter yëpp a ci yem nag yu ci bëri mooy loolu. non c'est que supporteru Modou Lo yi buñ oyofalee combat bi seen mbër lañ oyofal parce que Modou war na dépasser fu muy jëlee combat bu oyof war na dépasser fu muy jëlee mbër moo xam ne mënu koo daan wax dëgg dëgg yàlla tey ñoom buñ oyofalee combat bi rek xem nañ Modou Lo. noo bëggee yàlla xam na ni carrément combat bi oyofal ñu ko parce que le problème ané que ñun façon takosan bu nek am nañu ko fi façon bër bu nek dajé nañu ak mom ñi gëné xoté ko ama fouf kon nak tayji ni xam nga du ama mo ñu tek équation quoi fouf la bëggé waxé koku supporter yépp la gaydé supporter yi ci ëpp la yi ci ëpp moy lolu man neewuma la supporter mod lolu wala ama balé wala kenen dama la am na ño xamanteni ni dañ yor seen connexion bu doy rek dugg ci groupe bi sa way di sonal nit ñi naan ay li nangam sangam mais bu ci dem stade dessert rek acam mooy loolu waaye xaadim yow man maa ngi ci jàmm maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah ñu ngi sant waa xéwal bi ndànk-ndànk rek ñu ngi sant bu baax de maa la raw de man ñëpp laa na maa ngi ñëpp de waaw kër gi moom gëj naa fi wax dëgg waaw yéen a ngi yëngal gësam de nii la rek na yeneen combat taxaw ba commentaire bi gën a yaa mais Modou Lo Ama Modou Lo Ama rek pas Balla Gaye Boy Niang pourquoi pas Eumeu Sène Bombardier wala bombardier yi ngóor si waaw rek Reug quoi pas Sa Thiès ni Junior tamit combat boobu xaar leen ko de ñu ngi ñëw waaw sama gars yi ñu ngi leen di ziare bu baax a baax a baax a baax waaw xaadim ñun ñoo leen raw ñoo leen raw namoon nañ leen mais làmb ji dafa raxale ay promoteur mbër yi bari nañ macha allah moo tax ñu ci bëri dañuy obligé dem defi moodu moodu wala dara parce am nañ jàppaar bi te buñ toogee année balance baaxul ci at baaxul ci athlète bi léegi nag promoteurs yi sponsors yi ñoo war a ñëw jàppale leen xam nga supporters yi yaru tamit ñu mën a def ay publicité yu baax am na ci solo trop yaa ngi dégg mais loolu gouvernement bi moo ci war di jàpp pourquoi ça mu jàppale sport muy làmb ji muy football bi wala leneen yaa ngi dégg mais man dama gis léegi publicité yi li ci ëpp ñu ngi koy def ci ay film yu ñàkk fayda yoo xam ni amul lenn lu ñu apporter lu dul di yàq suñu doom yi ñu ñu ñuy ba film yi dem na ba biir kër yi sax te ciy indi ay kalan yoo xam ne nii kenn xamul lan la kenn xamul lan la ñun football lañu am ak làmb ji nañ ci jàpp bu baax a baax a baax ñoom gouvernement ba lañ cee mën a jàpp ñu tuddee leen bis xam nga buñ ñëwee benn joxe fa benn somme loolu amul te làmb yu ndaw yi la loolu amul benn sens film yi nga xam te ni dañ leen di produire nañ ko bàyyi ñëw jàpp ci làmb ji bu baax a baax a baax moo ëpp solo quoi parce que am na ci loo xam ñun moomuñu ko mënuñoo yàgg a yàgg bañ doon comme dawal ay film yu États-Unis di wala ay feneen ak feneen yoon nañ nañu jàppale ci liñ am daal moo gën a neex quoi tamit waa maa ngi jégalu ci kàddu gi baax bu fekkee dafa am dérangement maa ngi jégalu waaw buuba yàlla nañ daan ama moom bu fekkee ba ngaa dégg dëgg rek te yàlla tax yàlla mi amul kumpa xam nañ doo ko dégg sama gémmiñ waaw ndax ndax moom doo ko dégg bu dee man rek man duma ma ñaanal mbërum Pikine ñu koy daan déedéet du ma ko ñaanal jéllu mukk yàlla nag mën naa ñëw ki jéllam ñu daan ko waaye nag ñaanu ma ko yàlla de wax dëgg yàlla waaw ñaanu ma ko de waa liggéey bi de moom mooy loolu yaa ma gën a xam noonu la fa demee tey sax fi mu toll nii gisoo fi kenn ci biir xam naa gars yi dañoo jàpp ndaw ko ndaa nag bu ma déggee dana mere waaye sama booy la amul benn problème sa waa luy xew xamagoo ko luy xew xamu ko Ama dana tuus dana bëre kooku man xaw ci dara Modou Lo dana tuus dana bëre est-ce que Modou Lo kon mooy tuus mooy bëre wallahu axlam yàlla rek a xam da ngay bëgg a taxaw place yàlla nag bu ñu waxee nag nga ni bu ma jaxasee waaye mooy loolu de li xew suba xamaguñ ko yow daal ñaanalal sa mbër ba bis bi jot mu ñëw ak jàmm dikk ak jàmm nga ñaanal ko ndam ñun ñu ñaanal suñu mbër loolu daal mooy moo gën a nice quoi. sawa yow li nga wax li nga wax neel neel bugguma mu bugguma mu bëre bugguma mu tuus mais du tuus du bëre loolu waxu supporter la rek loolu Modou Lo sax bugg ko Modou daa bëgg Ama ñëw tuus tuus mu saf sap bëre bëre bu neex Modou Lo am ndam Ama tamit daa bëgg Modou Lo ñëw parce que promoteur bi loolu la soxla promoteur bi daa bëgg ñaari mbër yëpp ñëw ku ci ñëw ku ñëw tuus fecc bëree mu neex kii daan daan loolu la promoteur bi bëgg mais yow li nga bëgg loolu baaxul de Ama na ñëw indi tuus bu saf sap supporter yi kontaan. waaw ñi tuus di yëngal Modou Lo tamit noonu kii daan daan bi daan xamuñu koy daan nag mais dañuy ñaanal Ama yàlla may ko ndam lu sedd guy mu ñibbeeg moom Pikine lii laa wax waa garaawul war waa yi dañuy dagg seen biir dama xam ni jour boobu bu duggee Modou Lo dugg day patiner tuus bu mu doon tuus du ko def ñu muy bëreel ñi di tuur tuus bu rëy boobu Modou Lo bokk si <laughs> ama fit loolu la quoi ah, ma wax comme cadre <laughs> waaw kon loolu nga ma tontu moom cadre yàllaa xam moom lépp yàllaa ko xam wax dëgg yàlla suñu xalaat la ñuy wax rek suñu xalaat la ñuy wax lu ma gëw ma ne ama dana tuus nu daan tuusee gaw ma ni dana bëri nu daan bëree ah naa xamal leen nag Modou Lo mooy mais Ama Baldé du ragal de du patiner de waaw moo ñoom ñaar daal seen combat day neex de day neex day neex de waaw xanaa fekk jàkkaarloo gu teg Modou Lo face to face carrément jàkkaarloo at mbër yi patiné yi bari na ci làmb ji de Balla Gaye Modou laa xamante ni gaañ waaw combat lu mu rëy rëy rëy rëy rëy duñ ko patiné ah, moom benn stade la am am na ay combat yu muy mais day demee sañ-sañ quoi day demee sañ-sañ day demee sañ-sañ xelu xale bi dafa nekk si moom day jàpp moom day ñëw rek rek la jël la fiir la nga dem quoi waaw te nga derutu xale day tàng moom loolu lay loolu lay bëree waale moo tax ma yërëm ko ci combat bi mais def naa de. man daal wax naa leen ko sànq nee naa leen daal combat bi dàq ci komba yi mooy bii Ama Baldé Modou Lô bii di ngeen gis lu doy waar a waar di ngeen gis combat dëggantaan dina am fecc dina am bëre dina am xeex dina am daan waaw kuy daan daan bi nag xaw nit waaye ñun daal ñu ñaanal doomu Faalaay Baldé waaw mu daan daan bi lii laa wax. nga si droit de ñaanal doomu Falaye Baldé bi mais nit xarañ de yàlla may ndam lu sedd bi te yomb sax ndam bu yomb mooy ndam bu yomb mu door mu daanu waaw door ko mu daanu sax nañu lañ bëgg noonu ni mu mag ji mu def ko Ama Baldé lañ bëgg de te loolu laa gën a am yaakaar sax si bëre bi.